فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي
فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفتاه وهب لي وارزقني بكن الآن ضيقي أجل عاجلا بالبشر مع مرد حتى أقيم لجد دين الله أركانا يسير جوعي لتوبة واحمني وقني عدل الورع وتجيب لسما إسكانا لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليرد من شك بنا أجب وسلم بسلم سندي محمد asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax démb laa ko ko woo nekkoon di siyaare ba tey la waaw waaw kon ñu ngi koy nuyu kon kon di ko ñaanal aw yiw di ñaan suñu suñu boom defal ko defal ñu ko xam naa xam naa su ma su ma ko nettalee moom waxi baayam ja moo ci mooy ndoorteel waxtaan wa nee na bàyyam nee na ko ndey ànd nañ fa moom fa bàyyam nee na bàyyam déy ko ne ko day Moustapha mii day kuy dem la te ku bëgg a dem ànd ak moom ne ko nag xam nga nu ñu ànd ak mooma mu ne ko mooy na maam Cerno ànde woon nag ak sëñ bi bàyyam nag moom xam naa ko ku am solo la tër bi yëpp Cheikh Moustapha la kon day mel ne kon li nga xamante ne mooy soññe bi dëgg mooy jéem a jëmal sëñ Bamba jéem ko jéem ko suturaal jéem ko yëkkati ndax kat kuy xool te ami bët da nga xam ne murit gi day mbooloo mbooloo muy mës mësi de moom moom am na fi waaye mbooloo mu xam fu ñu jëm de man gisuma ko daanaa wax bu yàgg ca rajo duniyaa bu yàgg di leen sëñ Bamba de man gisaguma ab dongaam ab dongaam man de man de gisaguma ko koo xamante ni daal am na yittey jëmmal sëñ Bamba man gisaguma ko de man nag ca ca ca ñooñee ma gisut laa bëgg a bokk xoqal bu kaaw jooju ala sa am waat man sang soosee laa bëgg a doon sëñ Tuba xam naa ne war waras na koo mën a jëmmal ba ba nga xam ne képp koo xamante ne dangaa xam dara boo boo dikkee ci suñ biir xam ne dara nga fi loolu moom loolu moom ay ay jëf la ñaari xaaj lay doon benn xaaj bi wérdu yooyu wér rek say melokaan yooyu melo waaye ba ca des nag mooy jëmmal Sëñ Tuubaa ba muy tabax lu jumaay njëriñ ja loolu ab symbole la ngir lu lu jëmmal sëñ Bamba ci ci kaw suuf daanaa wax ci ni leen man de yàlla dafa wax ne walillaahi miraasu samaawaati wal ard man nag yàlla dama bëgg bàyyal ko fi lu mu doon ginnaaw nee na mooy mooy doon asamaan ak suuf man de yàlla dama dama ko bëgg a tabaxal loo xam ne da koy doon moom lii nii muy muy muy faydul xan yi faydu akaabiri saalihiin sëñ Tuuba joxe tur wi ndigal la ca ceen jolof ba ba daaw wala daaw jéeg mu soog a taaw loolu sëñ bi yeex na de am na ñu am na ñuy lay naan ah ab cër laag nangam ak daa sukuran yëpp de sëñ bi loolu ay lay la sëñ Tuuba lu mu bëgg murid yi tigi war nañ ko taxaw ñoom foo mu joxañ war nañ ko dagg waaye sëñ Tuubaa joxañ ca ci yéen jolof ba bëkki démb ah sëñ bi loolu yeex na di suñu bëggee sëñ Tuubaa ne sàng fu waay toll seen ko dañuy koy defal dara bind téere ci moom tasaare ko maye ko nit ñi xam ko ci xam-xam ñu samp ay daaray xam-xam yaatal njàngale ma samp daaray tërbiya yaatal connexion ba ba ku la gis yow nekkoo sëb sëriñ nga ne nga ne sëñ sëñ Bamba ñu naa kon de kooku dara la li ma gis ci yow de dara la lu am solo la lu am solo la te kat am na ñoo xam ne seeni seenu gis neex na de kon nag ñu kon nag ñu ñu góorgóorlu ci tout wérde yi moom moom ñu ngi ci moom ñu ngi wérde ñu ngi ñu ngi nangam xol yaa ngi tooy mën naa am jikko yaa ngi baax waaye nag luy jëmmal li ñuy dox lu mu doon ñaar fukki daal ak juróom-ñett yi moom lu war a mën a nekk la lool sax moom ma ndax man maa ngi ko maa ngi ko maa ngi ko teg ci ne kenn du liggéeyal yàlla te te te sun borom du ko sottal am uti nekk ma ma naal bi yàlla dimbali na ma dimbali na nu nu ñii ba ñu am taw peexe ne ngir yàlla la wa- wax naa ne it maa ngi yéen kon day mel ne la si waxoon mag ñi rek daa mel ne ku yor ak deex romb ku yor koogus ndox mu ne borom kook si kaanu ka- kaanu bokkaate borom kook si jox ko kook sa mu sotti ca dex ga mu ne fekk dex gaa ngay dex ga rek borom kook sa di bokk ca ndox ma loolu loolu moom taw peex la ndax ndax moom pas-pas bu set dëgg dëgg dëgg ak a jafe maanaam naaral yàlla te te muy dëgg màggal gi giinu génne bu ko sunu moom taaraaree la ca des ak ay néew lu mu ca moom moom waaw ndax tension moom sunu te amu ca daanaka daanaka fa muy am bëriwut de kon nag kon kon nag lii moom ma daal ma ma ma daal képp koo xam ne da ngaa wax ne da nga maa sopp ngir ngir yàlla sama yitti tigi mooy daara yi kese kay moom daara yi daal moom jox ma dërëm ak jox ma mbubb ak lépp baax na de waaye man li ma bëgg daal li li li nga xam ne soo ko defee ba noppi su su ma geesoo gis la mooy daara yi sama bàyyi ne woon na Cheikh Issa Dieng sëñ bi daana romb ci kuraar yooyu amoon ci diggante néegi di caa defoon ay mbaar ndax ndax bañ sëñ bi naaj wi di ko laal buy dox ba ci aw waxande daal ne waxande wi de nee na bu bu fàtte Issa ci liggéey bi si si Issa ni ko fa di sama bàyyi ne ne ne mburi saarix mooy koo xam ne su ab sëriñam geesoo gis ko mbaa moo gis lu bokk ci ci moom man nag li man nag ku bëgg ma ma ma gis lu lu lu bokk ci ci ceew damay xool daara ji xam ne yaa nga ca ah kooku kooku moom léeg-léeg nit woo ma naa ma bul ma fàtte léet soo soo soo bañee ma ma fàtte la da ngay def lu tax ba du ma la fàtte man du ma ci tontu de bu bu bu bu ma fàtte du ma ne waaw du ma déet moom waxu dara di su bañee ñu fàtte ko day def lu tax duñ ko fàtte ca na ko bëggee rek xam naa ko kon daal loolu kooku mooy soññe bi daara yi moom lim bi niru niru ndal rëy waaye daara ji ba ba ma koy naal ku ma ko wax da nga ne mu mënta nekk daara ngi yàlla mënta nekk may leen man ab daan kot laa yàlla dimbali damay fulku bi am na si nangam jóob si nangam si ca barabu sëñ Abdou Xaadir ba ma takkusaan nii ma ma toog fa di àggal sama kurus fa fa fa ñu fekk ma fa naa ma dégg nañ sa say sa xaw ma yëgle bi waaye waaye doon nañ ci werante kenn ka sant si daal ne man mii la sëñ ba sant Diop ñëw na fii ci fulku bi ne ne ma ndax ndax mën naa ko filmé waaw mu ne ma sa gars yi de xanaa buñu gisee lii danañ jaxle te kat am at képp la te te te te ci biir at mi moom ñoom ñoo mënut a nekk saate boobu boobu juddu na loolu kon moom man ku ne mënut a nekk moom man moom mën na nekk moom ñaar fukki te cooleet mu ñu wutaal yeneen ñaar fukki juróom-ñett kay waaye ñaar fukki juróom-ñett moom kooku moom jàpp naa ne noppi na ba noppi moom. waaw loolu moom loolu moom loolu moom jàpp naa ko moom ko kon nag fe fexe ba bokk def loola ndax suñu boobu lu mu xas nangu moom ak amam jeex na suñu sooy loo nee na ma sëñ Abdoulaat nee na daa xool mat labul faw sey ni gis na Sëñ Tuubaa ñaan na ko mu def ko ab mashruam ndax xam na ne Sëñ Tuubaa lépp lu mu ñaan diggu na na ca goroom koy lii moom tawfeex la joo xam ne ndax jàpp naa ne ne nangu gi am na bi ñu ko tàmbalee gént naa gis Sëñ Tuubaa mu ñëw fi booba tabax bi ñëw fi te te te te ci gént gi tabax bi mu fi de sëñ bi sëñ bi ñu ànd mu mu mu xool dara ji bo booba jàkk ji néegu bi te booba ba mi ngi ci gént gi. ginnaaw ba Cheikh Moustapha ni néeg su ndaw sii Cheikh Moustapha ab lal ne fa mu toog jublu nii ma toog fi suuf te te booba tabax bi bi néegu bi. plan bi nii mu mel. maanaam maanaam man wan nañ ma ko te jëkk bu bu fi ne loolu xanaa kon xanaa kon. leer na na na na ne kon moom no no ci noppi ne kon bu yàggoon xam naa jigéen ñi jigéen ñi jigéen ñi nag moom xam naa ne war nañoo am war nañ leen wutal bakar feggu ñoom nu ñuy gën a feeñee asmaaw bintu abi bakrin ci ci ñi ci ñi taarixi di bind lay bokk ca xaswatu uxud wala badar la di wala uxud la moo moo doon moom moo sa samba badar al kubra asmaaw bintu abi bakrin ba salaa salaam di rañaan moo leen doon rocc ko di leen joxub dund Sumayya moo jëkk a daanoo ci ci ci toolu xarab lislaam jigéen la salaay salaama da da danaa toog ci ak ab dat datu garab di di di xutba jenn jigéen ne ko ne ko waaw ah dat bi nga bi nga bi ngay taxaw toog nag moom ndax ndax mënuñu la wutal leen mu ko ah kay mu ne ko man sama doom ministre la daal koy wax mu wutal ko minbar jigéen moo moo créé minbar ci ci ci ci islam ah yooyu sëñ bi kon kon jigéen moom kon moom ab rôlam kon moom ci lépp lu baax ñu ko waxati jumaa ji ba ñuy gas kaleera ba am na góor gu wax ne ak góor goo xam ne nee na daa fajaru ci guddi gi la dox dem ndokk na ndax daal bañoon ku ku ko jiitu ci ci ci kàmb ga nee na ba ba ba mu demee di di gas jenn jigéen ndekete ñorox ñorox na ci ci guddi gi ba agsi ba mu déggee ko yëngu da da daa saaga. ndekete ndekete kenn dana ma jiitu ci kii bi xool de jigéen la de ci guddi gi guddi gi sëñ bi loolu kon kon kon jigéen ñi kon ñoom war si na jox nag bakkat fegg boo xam ne yaakaar naa mënta islami bi Cheikh Sow ñoom kon yaakaar naa waxtaan yi nga xam ne bëgg nañ koo door. moo xam ñetti weer lañ doon ñaari weer yu nekk ñu ñu fexe ba dafay def ay waxtaan waxtaan yoo xam ne dina xóot mu di sax doon wax naan projet bi ñu gën koo jàngataat projet bi. dool fi ñu dool ndax ndax mën naa am nit ñi xamuñu guñ ba xam daal lu ma jublu ndax misaal ci projet bi bokkoon na ci musée boo xam ne xam-xam yi sunu maam séréer yeeg pël yeeg. joolaa yeeg bambara yi seen xam-xam yooyu ñu ñu jël ko fa denc ko fa ngir ëllëg balaa réer balaa réer xam-xam yooyu luy faj luy nangam luy nangam ñu ñu bind ko denc ko. loolu ci processus bi la bokk de loolu loolu ko ci ci kon mën naa mën naa am gaa yi kon xamuñu dëgg lu ma jublu. ndax réer bambara joolaa nangam faaw mu doon ab karateka sudoka nangam faaw mu mu mu manadicien faaw mu nekk menuisier nangam faaw mu nekk médecin lépp lay doon de man kooku laa soxla. faaw nag mu xam mu am connexion yooyu yëpp lay boole ànd ak connexion sama maam Aminta de nee na soxna muslimatu moom si sëñ Bamba. danaa defar ay cere di ko jaay booba soldat yi jamono jooja mu mu mu leen moo leen koy jaay ab dund ñi daa dem Makka moo leen di moo moo leen di koy jox dund bi. boo déggee loolu da nga yaakaar ne soxna muslikat moom xanaa moom adduna dong lay wut. sama maam aminte ne ma bis na nga dañoo lal cere yi di ko di ko weer mu mu mu mu xiin ñu ne ko ah soxna si si cere daal mel ne asamaan si dafa xiin mu ne ah kon wéri leen ko ñeneen ñu tàmm wéri mu ne addit ba leen ko ma bàyyi ko koog njaag xiin wa tal di wuri sëñ Bamba njaag ba leen ma ba bàyyi ko koog njaag nga xam ne soxna muslim moom moo nga gis mu yëngu ci lu yëwén adduna soxna muslim booba ju pencum tubaa ji bu gisee ku xelam neexut ne fa ku xelam neexut góor ak jigéen ñooñee ñooñee mujj nañ doon ay nit kane soxna mos li ngoon toppatoo xam nga lu ko war a la daa xam naa ah li kat wóorut góor ak jigéen ci pencum sa sëñ Bamba mi kat dara mën na ci ca xew mu leen di toppatoo dala leen la seen xel bañ dikkaat kon kon ko ko yaakaar naa kon fay dul xam ni mu ni ko ñoom ñoom am nañ am nañ aw sas de jigéen ñi ñoom waxtaan yooyu bu dikkee amoon naa naalu téegal téegal téegal mooy mooy formation boo xam ne dañ ko defal jigéen su waree dem kër ay bés lañ ko yóbbu ci àll ba ak soxna yi gën a xereñ ca ca gox ba ñu wuta nii ñu ñu wut ak gongo jël ab néegum ñax teg ca kaw loolu ñu wax ab téeg gongo gi mooy tax ba ndox suuf yi du mën a yéeg ci ci kaw nangam nangam. daal ko fay formé ay bis loolu ñu wax tégal da nga da nga dégg sax booba ñu ne booba mag mag naan bu bu ko gën a rombee yi yërwut mu ne kii de bu ñu tégaloon ndeyam kon ko kon du mel nii maanaam bu bu ñu formé woon ndeyam ba mu xam nu ñu yore nu nu nu ñu yore gone kon gone gi du du mel nii formation boobu jigéen ñi ñoo ko war a ñoo ko war a jiite tàngal kafe xool naa ko de Kawlax njaareem Tuuba gisuma ku mën a tàngal kafe kafe yi may naan kafe kafe gu góor tàngal laay gis te moom moom laay naan yëg nekk ci kafe la keroog isbitar xee dem naa fa ca xaw ma ci magal gi ci seen mbaar ma ñu dégg xasida ñu indil ma kafe gu baax dama dama ne sa waaj xel ma tuuti ma sa taal ma xel ma tuuti ma naan waaye ndekete ma dama naan man bu baax ek ma jige te te loolu kon kon kafe góor xam naa du kafe jigéen de léegi nag jigéen ñi mënu mënuñoo togg mënuñoo fóot mënuñoo tàngal kafe tontu sax mënuñu ko léegi-léegi nag ñeenti yi ñu am centre boo xam ne dañ ko fa jàngale téegal lay doon centre bu formation bu tudd téegal loolu loolu jigéen ñi ñoo koy ñoo koy ñoo koy jiite yaakaar naa loolu kat bu amee sa yët dana gën a neex de ku ñuy wax Cheikh Fall nee na ma sax ni ñu yore gone nii ab liir gone gi ni ñu ko yore nee na ma moom jàngal nañ ko ko gis naa ne jigéen ñi xamuñu nu ñu yore ab liir da da da ngay gis ponkal mu jigéen moo xam ne day jàpp ci mbaggum ab xale yëkkati ku ne xam ne na metti na kon ñu jàngal gone jigéen ñi nu ñuy yore gone misaal dana dana wax ci tóokër ba jigéen ñi ne leen waqar na fii buyutikunna la yàlla wax yàlla nee na ngeen ri riiw ci ci kër yi ñu ñu ne waaw noonu oustaz bu jàngee ba noppi nag kon ñu kii ma ne waaw bi ngeen jàngee da ngeen a jàng ngir war a dem ci kër yi riigu fa yor gone ya am na ku ñuy wax waaye nan nan faamate no xaw ma nan ndonga ndongal sant de njëriñ gii laa ko fekk ci école su sëñ Mor Talla ba Cheikh Fall moomu nuyu la ma ak moom xaw ma nan ndongal sant ndongal sant ndonga mu ne mu ne ma nuyul kii mu ne ko nuyul sëñ bi mu ne mu ne ma kii de am na ba borom kër waaye nee na daa bëgg a jàngaat mu ne ko ah mu ne waaw man de damaa am BFEM interdit laa am ñu maye ma. léegi nag ma ma ne léegi man kat suuli bi bi ñu ma jox mu yor kër xawma ko damaa bëgg a dem jàngi ngir xam ko. Cheikh Fall ne ma de fi ñu toll waajibaat yi nga xam ne moom lay toppal ci gone yi nee na day toppatoo borom këram ba borom këram nelaw quatre heures de matin lay jóg war a nekk ci liggéey ba. fay si man xuma na xuma la xuma nan ndongal sant man keroog dama yéemu loolu si man si ma yéemu de jigéen ju mel noonu bëriwut. kon kooku moom kon jàngut ngir liggéey moom liggéey këram moo tax muy jàng kon soxna yi ñoom it message bi bu ñu ko mënta jàllale ci bitti it ñoom ñoom ñu nekk ci ci faydu ñu formé leen ci loola baax na de tool bi moom mu set waaw waaye noonu nañ fexe ba faydu moom toolam bi set moom biir faydu faydu xam ni mu ko nii jigéen ju ci bokk ñu fexe naat defar ba nga mën a doon koy roy maam jaara loolu loolu yaakaar naa kon projet bi tiggi nag moom mooy loolu Cheikh Sow kon yaakaar naa kon moom jigéen ñi kon war nañ leen cee fexe loolu ñu waxtaanee ko formation bi nu nu muy amee lépp ñu kii ko whatsapp yi am na groupe whatsapp boo xam ne tégal lay tégal lay tudd léegi nag ñu formation yooyu mën a jàll ba ci fóot bula nu ñuy bulaa nu ñuy daakaandee nu ñuy paasee lu weex ak lu weexut booy fóot lu weex ak lu weexut luy jëkk lu ci jiital booy wis noo koy wisee loolu jigéen ñi mënuñu ko te man yàlla dimbale woon na ma gisoon naa sama nday ja da ko def may def observation booba tout tànk la booba demaguma dara de waaye lépp la mu kal yaakaar naa bu waaye kon buñ ko sottee foofa yaakaar naa yaakaar naa kon kon dana am njëriñ kon daal liggéey bi kon kon moom yaakaar naa kon li ñu tuddee animation pédagogie du ñàkk moom loolu mu waxoon maanaam kat faaw ñu ñu ñu weer wu jot ñu am waxtaan woo xam ne mais da- da- ci ci ci ci loolu jëm ndax dund dund giiwén wér di wéy rek dund gi baaxul amu njëriñ suñ tubaab da ne waa amur yii ila jaay ne nee du fii la war a neexee di di wéy waaw waaye fi adduna ji war a naqar si mbir yi ma nga wax moo du ne ko fi ñu toll xam naa ku ku mel ne Abdoulaye Diop lew na tey ay an ko waxati ay kilim yoo xam ne ci énergie solaire bi ci ci lay dox war naa mën a nekk fii ñoo indi ko bi Sénégal li mu am ci ab jant o o tàngoor war si di ko mën a soppi ab ab sedd loolu it ci projet faydu la la la war a bokk faydu nu nu muy fexee yee nit ñi ba ne leen war ngeen a am ay clim ñu ne ah lu nu koy amee ñu ne waa ko jënt baa ngi nii ñu ñu dem wut wut projet yi te tubaab yi ak ñu wala ñu ko xam Asie Chine Japon indi ko fii sëñ bi boobu liggéey noppal nit ñi bañ tala ja jaam mu yàlla bu amee sëñ bi boobu yool moo gën yor sa kurus de yaakaar naa ah man de mu mu mu gën ci man sama sama am ja lu ma waxoon julleeg woor jaamu yàlla ji- jigéen la góor tigi moom wërta yem foofu kon xanaa ko kon ko kon yokkoon ñi ñi ngi sant bu baax a baax a baax jéego yi sant bu bu baax a baax maa ngi doon dinkaane waat bu baax nag yanu loo attan doxee na na nga ma ne yanu loo attan doxee na nga ma ne lool lool loolu moom nit ku ne nag am moodu am saam ñi nga kooku moom kenn ku ne yow mën ngaa yéene nag yow mën nga ne woo man ka da- damay waxu nag damay daw kay dama kii waaye nag Cheikh Sow mën na ne man ka daa baax na daw leen man ka da- damay temp man ndànk ndeem xam naa ne dana àgg xam ni yow doxee ni nga mëne dafa am mbooloo sangam foofu lay tëjee rek mbooloo sangam nu- nuñ daa defee loo- loolu baxut ci man buñ dee waajal màggal benn waaye dañ ñëw daal ne indi million bëcc ci ay million nanga million ñu ne jox naa ko kenn jox naa kër ndekete ñoom da- da- dañ koo déggoo ci seen biir yow na na nga na na nga indi nangam ci xaalis teg ko ci kanam nit ñi ne ne jo- joxe naa ko bu répété dañ la koy ju- ju- joxaat ngir yëngal nit ñi ah loolu loolu loolu du dox ci yàlla déedéet dox dox ci yàlla dëggal la
فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفتح وهب لي وارزقني بكن لانا ديك يا ذي العاجلا بالبشر مع مددي